بسم الله مرحبا عثمان بن عفان بن يتيم خليفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ما يخبره عثمان بن عفان في بنت بنت تبقية لما يخبره من سيدنا عثمان عثمان بن عفان من خمني كورا لو انت يلنتبي يلنتبي ما ينكو دوما ما génn a muy roqal mu mayaat ko doomam euh, umu kalsum mu génn àdduna mu ne may leen Ousmane soxna bu ma amoon fukki doom dinaa ko may ba mu jeex moo tëdd fii xam ne Omar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ak Abu Bakrin moom mu ñëw tëdd fii jërëjëf jërëjëf li ci gën ñaan lañ ci war a mën a ñaan moom comme ñaan gi ñu doon ñaan rek asalaamaaleykum asalaamaaleykum ya ahla diyaar min al muminin min al muminin wal muslimin wal muslimin wa inna wa inna insha allah insha allah bikum bikum لاحقون لاحقون أسأل الله أسأل الله لنا لنا ولكم ولكم العافية العافية جريف